sans plus tarder dañuy daal di Fatima. Euh, tàmbali faram-fàccee dossier yi benn par benn. mi noonu voilà dañuy door rek euh, nuyu mbokk téléspectateurs yi comme euh, nañu koy defee rek tous les mardis mbégte la ak bànneex jàkkaarloog ñoom ci revue de presse judiciaire bi di guddee di jéggalu bu baax ci guddee gi. di remercier Lions yi Pape sama diggante ak Sadio Mané ku ne xam na ko ci réew mi doonatul lu ñuy présenté Oulay mm-hmm. dañuy door rek ak dossier yi Pape. voilà dañu koy euh, tàmbalee rek euh, coowal euh, terrorisme nga xam ne nag dañ koy faral di dégg ci réew mi wala sax yàgg nañ di ko dégg bi la yoon nag procès en appel deuxième procès en appel bi ñoo doon sax bëgg amal ni ci démb di altine dañu ko mujj annulé waat la ko soobee sax di ñañu ciy jàppoon ni ñoom la ñu ciy jugé ku ci mel ni Matar Joxaane ak ay ñoñam ñoom ñooñu lee wala sax Matar Joxaane mujjul ñëw la waral boobu lee absence sax nag jàpp nañ rek moom dafa xaw a tawat ca ci naka noone la ñu jël euh, mbir mi puusandiko ba fanweeri euh, fan ci weerum euh, janvier bi ñu dëgmal atum 2023 mu doon nag mbir moo xam ne rek pap bu ñu fàtte ne rek doon nañ ci tudd ki la di ndem si yàlla imam Alioune Badara ndaw waaye nag mën nañ ci jàpp rek ñeneen ca ña nga xam ne lim nañ leen rek mbokki di Maktar Joxaane Omar Yafa Mohamed Ndiaye Lamine Coulibaly Abdou Diallo ak ñetti Ibrahima daal yi nga xam ne ñoom ñooñee ca la ñu bokk di Ibrahima Diallo Ibrahima Mballo ak Ibrahima Ba mi ngi noonu donc procès en appel bi la ñaareelu atte bi euh, atum 2018 atte woon nañ leen euh, am ci ñoo xamante ne ku mel ni Matar Joxaane ñu tëjoon ko 20 ans ñeneen ñi ñu condamné leen à des peines diverses ñooñee nga xamante ne nag ñoom ñooy appelants yi ñoo waroon taxaw euh, démb ci altine ji mais mu mel ni dañ koo mujjee dàqandi ba ci at mu bees mi ngir ñu amal li nga xamante ne moom mooy atte bi nga xamante ne donc ça va se jouer sans la présence ki nga xamante ne moom mooy Imam Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram moom dafa waroon na teew comme témoin maanaam seede ci atte nga xamante ne waroon na waroon na am donc quelques compléments d'information rek euh, balaa ñuy génn ci dossier bi avec Ouleye. ñu repoussé ko rek euh, ba le 30 janvier n'est-ce pas 2023 ci la euh, lañ lañ leen wax a àttewaat <clears throat> mais nag joxaane Pape dañoo déggoog ay mbokkam. Mhm. yoo xam ne waxtaan ak moom mu jox ñu yóbbante rek boo xamante ne nee na bu sañoon procès bi day am ndax wax nañ leen. Euh, ne yaram dina ko mën a may pour mu ñëw teew si même bu nekkee ne ne euh, dafa feebar ndax nee na feebar bi lu ko waral yépp c'est parce que respecté wuñu ay euh, rendez-vous parce que day dem hôpital ñu jox ko ay rendez-vous mu bañ ko respecté je pense que la dernière fois on en parlait ici il est resté presque six mois bi rendez-vous mu passé ba léegi mënul fexe bañ bàyyi ko pour mu dem il a fallu que balance di wax di insister di wax di insisté pour mu mën a dem nag mu nekk looloo taxoon wér-gu-yaramam gën a gën a nërmeelu mais nag moom sàkku woon na na pour ñu bañ a xool ci loolu bàyyi ko mu ñëw ca procès ba ndax bëggutoon renvoi ndax bëggul lu dul ñu gindi leen gindi seen i morom muy ñaan rek ne beneen yoon buñ ko renvoyé même bu nekkee ne sonn na même bu nekkee ne am na euh, nu mu tëddati ñàkk wér gu yaram bi nekk si moom mais am na taxawaay goo xamante ne mënul na fekkee procès bi mais mu mhm. nekkoon sañam kese ak ay avocat am da duñ ko doon renvoyé day ñëw teew Mhm. donc toon ci coobareem daal nekkuloon ci coobareem nekkutoon coobareem xanaa di ko ñaanal suñu borom defal ko wér bu baax waaw di ko ko ñaanal di ñaanal ay mbokkam rek pap mhm. mu nekk loo xamante ne tubaab fakàlla macha allah dossier bi waxtaan nañ ko fi waxtaanee waat ko fi mhm. euh, je pense que ni euh, comment dirais-je pa Sow monsieur Sow chaque jour mu dellu si waat ci Makhtar ne rôle bi nga xamante ne joué na ko ba tey ñu arrêté ko ba tey ñu tëj ko ci vingt ans ñu ñaan yàlla rek que procès bii di jub si le 30 yàlla nañ ko yéewal euh, te doxale ko ci jàmm ba nga xam ne dina dee mën a dellu delluwaat ci ay mbokkam mm-hmm. euh, ci li ñu sukkandiku ci li avocat mi yox ak li nga xamante ne joxe nañ ko je pense que ne bu ñu ko jaaralee si yoon dina ñibbi këram dina ñibbi këram euh, mm-hmm. Pa Moussa waaw euh, Pape di di di delluwaat ci associé solidarité ak ñoom Matar Joxaane mm-hmm. effectivement xam nga bi mu Matar bi mu feebaree yàgg na alors déjà rek bi muy bi muy njëkk demandé ay soins Euh, médicaux déjà euh, médecin généraliste bi ñu ko andil. Euh, moom dafa dafa ñëw rek wax ko benn maladie et xam na li ko dal. mu ne ko du loolu. donc il lui fallait un spécialiste te effectivement Matar toog na pratiquement sept mois sans sans sans soin alors que fi mu nekk surtout ci quartier haute sécurité boobu noonu foog naa ne li nga xamante ne moom moo war ci moom waroon nañ ko ci def mais li ci gën a scandale et puis may appeler aussi. à la vigilance surtout des conseils euh, avocats yi nañ taxawu seen i clients parce que non seulement euh, Matar Euh, depuis lors mi ngi mi ngi mi ngi euh, ñaxtu feebar euh, te feebar boobu noonu jël ko en charge correctement c'était problématique bon gis na mujj gi tey tey tey jii nii gis na le médecin spécialiste mm-hmm. mais quel que soit quel que Alpha moom il était prêt pour mën a présenter wu même bu dee dañ koy dañ ko waroon a xol sur le plan médical moom nee na avocat am waroon na mën a dem représenter ji ko et effectivement pour que ñu bañ a dugaat ci beneen renvoi mais malheureusement l'avocat n'est pas venu malheureusement Matar Diokhane ne pas venu mhm. impérativement il fallait que ñu renvoyé waat ko mhm. te renvoi bi xaw na guddaat comme euh, parce que deux mois presque deux mois ci koo xamante ne moom euh, am na aptitude et que même sudul euh, son son avocat mën mënoon na ko présenter donc situation boobu la ñu nekk ñoom actuellement ak ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi ci yëpp léegi li le fait que euh, le parquet avait euh, demandé wala sollicité le témoignage de euh, Imam Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana Imam Ndaw témoignage am lu capital la woon ci mbir mii nii donc c'est pourquoi j'ai bien aimé l'appel de son frère nga xamante ne def na Ablaye Ndaw Ablaye Ndaw ndeysaan euh, di ko ñaanal yàlla fay ko tamit may ko kattan gu mu téyee daara ji wax dëgg yàlla parce que daara la boo xamante ne ñi fa aju bëri nañ te imaam ni mu ko doon doxalee euh, lu ama am solo la donc kon ñoom ñëpp ñi nga xamante ne actuellement ñi ngi foofu di xaar procès et que yi ñu ngi may interpellé aussi sur la fait dafa am benn loi bu ñu voté sur le terrorisme récemment alors boobu noonu gis gis nañ sax même les acteurs politiques ak yëpp lañ ci laaxaale du dugal ku nekk ñu jiiñ la terroriste mais di rappeler aussi que ni euh, ñoom loi bi leen régir euh, du boobu noonu parce que c'est entré en vigueur bien après maanaam bañ leen di toog loxo loi bu bees bi amagul loi bu bees boobu amagul woon donc te loi boobu dafa xaw a doy waar xam naa bis dina ñëw sax ñu càmbar ko. mais euh, boobu gis nañ même les relents politiques yi nga xamante ni moom la jël ba ci ay acteurs politiques ñu leen ciy teg loxo di leen jiiñ terrorisme mais ñoom sur sur la base de la loi bi nga xamante ne euh, moom moom moom lañ euh, voté 2016 yi expressément rétroactive. parce que mm-hmm. ñoom bi leen di interpellé c' était en 2015. 2015 li ci ëpp c' la loi sur le terrorisme moom moo koy régir mais quel que soit alpha li doon continuer wax la ñuy wax ba tey jàpp ne yow da nga bëgg a def terrorisme tu veux imposer la terreur da nga bëgg a intimider euh, askan bi comme ni ko terrorisme décidé ñoom bu ñu demee ba Boko Haram dem ba Nigéria te loolu xeex ju tax leen a jóg guerre tax leen a jóg raye tax leen a jóg bañ demee Nigéria dañ ko fa fekk teewul dañ ko fa ne ñukk bàyyi ko fa ut ay mécanismes yoo xamante ne moom lañ ñibbisee ñuy fàttali ne aussi que ni Matar Diokhane ba koy arrêté à au Niger à Zender ce n'était pas pour terrorisme du woon lañ ko arrêté ay faux billets lañ leen arrêté woon te ci biir arrestation boobu noonu moom fekk na ñibbisi na ba nekkaat ci activité am di tabaski ci biir këram ay camarades ñu mu àndaloon ñoo ko woowaat ne ko dañ leen jàpp pour ay faux billets à Zender. te loolu noonu prison yi ñu leen dugaloon Zender foofu ba gis ne ñii ci Sambi Sall lañ jóge euh, ba di leen di enquêter pour terrorisme foofu lañ leen torturer ba Moussa Aw ñàkk fa bakkanam ci prison yooyu noonu. d'accord te loolu noonu état du Sénégal amul benn taxawaay bu mu ci def pour jéem a essayer même euh, de prendre la lumière sur yan condition la Moussa Aw deewee ci noonu la Matar Diop nga xam ne jugee waat fii dem fekk ji leen foofu noonu. ñoom ci terrorisme boobu noonu waa Niger seetal nañ leen wecc ne leen ñi defuñu dara mais malheureusement moment boobu noonu le Sénégal l' du Sénégal avait soif de terrorisme parce que les subventions sur la lutte contre le terrorisme waroon nañ cee am et il fallait créer impérativement des terroristes il fallait avoir un cerveau à la personne de imam mhm. gis nañ ne waxi caaxaan la woon waxi ndax mais mais au de la euh, personne de Matar ñeneen ñi ci war a comparaître ñëpp jàppuñu leen pour des actes intrinsèquement liés au terrorisme mais surtout apologie la ak yooyu noonu quoi y en a pas amul benn acte de terrorisme euh, Mouhamed Ndiaye nga xamante ne même l'ordonnance de renvoi de feu Samba Sall mu ngi wax ne moom dawal na char de combat ay na kuntum euh, donc euh, te ñooñu tey boo nekkee ci biir Boko Haram bëgg a ñibbi déggoo ak ñoom d'accord ci ñoom li ñuy def nga bëgg a ñibbi mais ay la yéwén déjà tu en danger par rapport ak différence euh, d'approche bi yaa ngi en danger waxatuma laak nag nga nekk foo xamante ne mitrailleuse yaa ngi dal sa kaw parce que à l'époque Goza était pris par Boko Haram mm-hmm. mais bu buñ ne la sawaay dawalal ay na kuntum da nga koy dawal wala ñu rey la d'accord Pape Sané non li ma ci bëgg a wax rek gannaaw bi ma maasoo Matar Joxaane mm-hmm. euh, moi sur cette affaire de terrorisme man dama am de sérieux de sérieux de sérieux euh, de sérieuses questions xam ne moom laay teg ci table bi Pape Moussa l'a dit que Sénégal depuis quelque temps dafa engagé wu sur la voie de la lutte contre le terrorisme. Mm -hmm. tout le monde est d'accord mais comme nag c'est des crimes spéciaux wax fa dëgg yàlla dañu war a créer des juridictions spéciales mais Sénégal amuñu pôle antiterroriste amuñu parquet antiterroriste donc à, à la limite je dis à la limite les juges yi di toog di àtte ñoom Matar Joxaane supposément ne dañ leen accusé pour terrorisme. Mm -hmm. mais c'est des juges yi nga xam ne qui sont spécialisés en droit général droit commun mhm. donc tey jii y ce problème là cest à bu ñu nekkee ci dëkk bëgg ne dañu dañu bëgg mbir il faut qu'on se donne les moyens si l'État se donne les moyens de modifier la loi 65 60 bi Pape Moussa di wax léegi qui vraiment une